autorité du WACF est une institution de l'État du Sénégal, rattachée au ministère des Finances et du Budget. Son existence est, euh, liée à la loi relative au WACF, la loi de 2015. Dans sa stratégie de vulgarisation du WACF, il a été jugé opportun de nouer des partenariats avec l'écosystème et à ce titre, les imams sont des relais privilégiés pour pouvoir porter le message jusque dans la communauté. Les visites des WACF nous ont permis de voir que de, de regorge de beaucoup de potentialités. L'atelier d'aujourd'hui, qui est le point d'ordre de, cette, euh, de ce déplacement, est de capaciter davantage les imams sur ce que le WACF peut constituer pour la gestion de la mosquée et son entretien. Dans beaucoup de pays, lorsque la construction d'une mosquée se fait, il est attaché un WAKF de sorte que son autonomisation est assurée. Non seulement son, autonomisation, mais il a été question de la condition de l'imam, pour lequel les WAKF d'envergure peuvent aller jusqu'à la prise en charge du salaire de l'imam. C'est à ce niveau qu'on doit aller. Les Sénégalais euh, commencent à s'approprier de ce mécanisme qui est un instrument extrêmement pertinent et important de l'économie sociale et solidaire islamique. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites votre WACF, un WACF d'investissement qui est une entreprise par exemple, cela permet de mobiliser des ressources, cela permet d'investir dans un secteur porteur, cela permet de créer des emplois et tous les revenus générés vont vers des personnes vulnérables. Donc, on parle d'inclusion sociale. Donc, dans toute la chaîne de l'économie, le WACF a une place extrêmement importante. Au-delà de sa mission de vulgarisation, de sa mission de contrôle et de supervision pour garantir aux constituants des WACF que leur WACF perdurera de leur vivant, mais en particulier après leur décès, ça, ce sont les missions de la haute autorité du WACF. Nous faisons de l'investissement public pour le compte de l'État. Et nous mettons en place des instruments pour lesquels les Sénégalais peuvent faire des donations. Pour constituer un WACF, comme nous l'avons dit, il est important de le faire auprès d'un notaire parce que c'est la garantie, c'est la sécurité que son WACF perdurera après sa mort. Ce qui est extrêmement important parce que la haute autorité du WACF effectue périodiquement des missions de contrôle sur le terrain pour s'assurer que les vœux du constituant

muy jaamu yàlla gu mag a mag gu lislaam teela a sóor depuis jamonoy sahaaba yi ba nga xam ne mën nga wax ne fu lislaam egg pratique wax moo ko fa yóbbu mu nekk nag jaamu yàlla nekk sunna gu ñu bëggoon a fàtte waaye monde islamique gis importance bi mu am mu delloosiwaat ko wala mu jëm koo delloosiwaat même bu fekkee lu cosaanu la ci dëkk yëpp même fii ci Sénégal lu fi yàgg la këru diine yëpp ay aw awqaaf lañ jàkk yëpp ay awqaaf lañ mboolem béréb yi nga xam ne daanaka dañoo am relation ak l'islam moo xam fu ñuy jaamoo yàlla wala fu ñuy jàngee diine ay awqaaf lañ kon lu fi yàgg la waaye nag jamono dafa àgg foo xam ne lépp lu ñuy pratiquer te boo bëggee mu efficace da nga koy formaliser loolu nag mooy li nga xam ne moom la état bi dolli te muy lu am solo mooy ñu formaliser mbir waqf fii ci Sénégal tàmbalee ko ci wote ab loi 2015 Euh, mu jëddale ko 2018 mu taxawal ben institution bu tudd euh, haute autorité di waqf ngir ñu jappalé jullit yi ñu mëna a pratiquer waqf ci façon bu gën am sécurité té moy boko inscrire ci euh, notaire bi notaire bi jël inscription bobu dénk ko waqfu wala dénk ko haute autorité waqf mu ñëw topp la wax fi ba xam ni nga ko bëgg woon mi ngi demee noonu wala déet loolu lu am am solo la loo lu luy assuré waqf bi la luy tax nit ñi sawar cee dugal seen àll ci la bokk loolu lañ gis ne imaam yi mënuñ cee des gannaaw ndax ñoom ñooy ñi ciy njëkk a bénéficié wu ndax xam ngeen ne mbiru imaam yi lu xaw a compliqué la ndax imaam fii ci Sénégal kenn du ko fay ay bon bénévolat lañ ba pare te ku jaaxle ci ñoom ngay dem te amuñ benn ressource amuñ benn ressource ludul ben julit bu baax bu foromb jox len 500 wala jox len 1000 francs léeg-léeg sax boy laaj courant jàkk yi bu kur laajte bi xawee yàgg ñu né mba imam amu ci dara donc imam bi am nañ jafé jafé kon nak waqf bi man na tax jakk yépp andak ay waqf c'est-à-dire andak ay ay institution wala ay ay bâtiment wala ay ay cantine yoo xam ne dañ koy louer la cay jóge ñu yore entretien jàkk ji ñu mën ci mosal imaam loolu kon loolu rek doyoon na motivation pour imam yi bokk ci parce que nit ki tam lu mu yëgut du xam nu mu demee te bu xamul nu mu demee mën na caa doomu aadama amul boobu mandu da cay jéem a wax lu mu xamut te loolu yàq rek lay jur bu demee ba wax fu nekk culture problème yi rek la mm-hmm. ndax jullit yi am nañ lu man lu mën a faj soxla jullit am nañ ko mën nañ euh, état bi mën na leen confier mbirum organiser wax wax mais nag azaka ñu bëri ñu ciy jéem quand même bokkul ak wax azaka ñu bëri ñu ngi ciy jéem waaw xam nga barki dem rek ngeen dégg suñ mbokk murid yi waa tubaa ñu taxawal benn institution boo xam ne day dajale wax jullit ñi loolu am solo te am na yeneen initiative yu ko jiitu woon. kuréel bu mag bi nga xam ne son excellence le président de la République moo euh, te mu néew ci réew Afrique bi mu am te jàpp naa ne balaa yàgg nañ ko dañ ko toppandoo ci Sénégal. mooy loo xam ne comme ni ko oustaz waxee léegi ci biir lu yàlla wane la ni di mënante ne doon boo xam ci diggante jullit dina bokkut ak asaka asaka dafa am ñu ñu koy war a jox yàlla tudd na leen mais wax fu mooy taxawal ay ay bërëb yoo xam ni wala ay jumtukaay yoo xam ne dina génne koom koom ba di delluwaat ci askan ba di delluwaat ci kan ko bëgg a jox wala kan ko bëgg a dimbalee wax naa léegi ci biir saal bi nii moo daanaa Cheikh Mouhamadul Moutala Mbacke xam nga taxawaloon na fi al azhar transport def ko waqf li ci doon génne yëpp moo doon renforcer école yi di dimbali école yi nga xam ne mënuñoo fay seen i jàngalekat di dimbali aussi néew ju doole yi di taxawal yeneen projet lu mel ni ay boulangerie lu mel ni ay ay station essence ak souci transport wax naa léegi ci biir saal bi ni man ba ma demee Rwanda dama fa gis lu ma yéem ndax réew la moo xam ne minorité musulmane maanaam ña dul julit ñoo ëpp ñuy julit mais dama fa dem visite dem fa congrès gis jullit di am doole lool am fa rajo am télévision am ay société mais bi ma leen laajee dañu ma ni bi ñu président bi joxee suuf ñu tabax fa jumaa li war jumaa ji yëpp dañ ko def ay magasin loué ko di fa jaay xalaal lay génne foofu mooy entretenir jumaa ji mooy dimbali imam bi mooy dimbali néew ju doole yi waaye mooy jël entre mooy mooy mooy financer yeneen projet donc loolu exemple la ndax bëri na jumaa yoo xam foo ci dem na fa fekk espace boo xam ne mën naa ëmb loolu te la koy yombal mooy ngeen fexe ba la fay génnee di delluwaat ci jumaa ji ak ñooñ jumaa ji ak kon wax am solo la président mën na ko dégg rek nga toog di xaar ay mission ay séminaire ay ndaje ak di xaar ndigal yu jóge ci kaw waaye moom dañ ko ko dégg mu yaatal ko jël ay expert islamologue spécialiste économique arabisan teg leen ci wetam ubbi ko ci kanamu institut islamique de dakar ubbi ko ci ak man mii ubbi ko ak isbi bu touba ubbi ko ak ligue des imams et prédicateurs islamiques ubbi ko ak série des awi tidiane tarixa yëpp donc loolu ku bëgg résultat bëgg liggéey bëgg développer mbir boo koy def te rafet nañ njot ni dina ko réussir ndax am na projet yu rëy rëy yoo xam tàmbali na ko te balaa yàgg retombé fay am yëpp luy jëriñ jullit ñi ne wax ne léegi ci biir salle bi nii euh, autorité bi fas yéene ñuy cent mille ndongo daara ci seen wàllu santé taxawu leen loolu bu amee dana doon résultat bu solo